demam nga umpuna mindéef te um na boppub kuy mindéef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàq ne xéem aouzu min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki taalibe yi ñoo ngi tàmbalee kàddu yi ci nuyoo ak ziyaar jiite ci alxalifatul aam lil muridina Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi te mottali ay naalam waaye teg ko ci jëwriñu ko Cheikh Mouhamadul Moustapha muy Cheikh Ahmadul Mokhtar ak mboolem njaboot Cheikh Moustapha gi nga xam ne ni ñoom lañu fekk di nuyu baax sunu bokk yi nga xam ñoom lañ seqal jataay bi waaye di sargal bu baax sëriñ xaali mi daane kàddu te wotorotal fi lu am solo lu jëm ci wàllu xam-xam ci dëkk bii di tuubaa li mbooloo mi waxoon nañ ci tënk tuuti nag mooy Touba ak mandargay diine yi ne ci Touba defe naa nag bu ñu seetloo jamono yi toll nii dëkkub Touba liñ ciy waxtaane bari na lool statut Touba statut ban la am ñenn ña Touba dafa amuk jagle ñenn ñi di ko tuddee Touba ville cent wala Touba bu am statut particulier am nañu ko nangu am ñu jàpp ne Touba comme yeneen dëkk yi Sénégal rek li ñu am lay am la leen war moo koy war am ñu gëm ne dëkk bi dafa am boroom muy Seexul Xadiim te bis bu ñu ko gisatul ak njabootam ñoo koy moom waaye dafay mel ne bu ñu dee jàngat dëgg-dëgg dañuy jàpp ne loolu dese naa leer ci ñuy wax ñëpp moo xam ñenn ñiy wax ne dëkk bi am na statu particulier wala ville sainte la ak ñi jàpp ne moog yeneen dëkk yi ñooyam foo ci xool day mel ne am na lu ci desee leer ndax danga nga dégg kuy waxtaan ne dëkk bu amuk jagle la Touba dëkk bu sell la moom dëkk ci Touba waaye na muy doxale boo ko xoolee dëgg-dëgg doo ko mën a xàmmee ak ñi dëkk ci yeneen dëkk yi léeg sax ñi dëkk ci yeneen dëkk yi nañuy doxale moom ngay gën a nangu ci sam xel ci moom mi dëkk ci dëkk bi ni muy doxale ndax ñi dëkk ci yeneen dëkk yi ñoom xam nañ ne dëkk bañ dëkk am na doxali yox bu ñu ko fa doxalee am nay luwaa ak règlement yu ko tënk yoo xam ne nii sanction dana wàcc seen kaw te du xaar kii nekk Touba nag di wane Touba dëkk bu sell la dëkk bu amuk jagloo la jagloo la dafay mel ne ñu bari ci ñoom dañuy nëbbutu ci gannaaw tur woowu ak waxin woowu ngir def ay pratique ay doxalin yoo xam ne nii léeg-léegi sax yoon du ko nangu waaye léeg-léegi sax xel mu sell dëgg-dëgg rek du ko nangu fii ngay dëkk gis ko dëkk ci dëkk bi ñu ne fay impôt mu ne du fay impôt fayal taxe mu ne du fay taxe mbedd mi lu ko neex la ciy def du ci déglu kenn buy tabax du tàggu kenn nu ko neex lay tabax soo waxee mu ne damaa ne ci dëkk boo xam ne nii dafa amuk jagle walla boog dëkk bu sell xoolal lii xew ci sunu moyen transport transport en commun yi ni nga gis jalgati gi ci am ak façon ni muy doxe nga xool sunu mbedd yi ni ñu koy occupé ni mu déggoo dëkk ci yoon gis sunu marché yi ñàkk jaar yoon gi lépp ba ci sax barab yi ñuy jàngaleek a yar nga gis li ci nekk ci aw doxalin woo xam ne nii léeg-léegi xel du ko nangu te dafay mel ne kenn du am sañ ñu wax kenn ne ko teggil sa tànk walla fi nga teg du foofu ndax rek ne Touba am na ak jagle wala boog Touba statut particulier la dëkk bu particulier la wala boog Touba statut particulier la am ndax loolu mooy li ñuy wax jagleeg Touba wala sellug dëkk bi ndax kon sellug Touba dafay tegtal ki fi dëkk sañ naa xëtt sart xëñ naa sëtti doxalin te dara ko ci fekk jàpp naa ne loolu taxul ñuy wax dëkk bu sell walla dëkk bu amuk jagle te ñeneen nit dañoo war a gëm ne. Touba kenn mënta weddi ne am na alum jagoo lu mu wuuteeg yeneen dëkk yi la ca jiitu mooy ni ñu ko sose ak ki ko sos ak moom mi ko sos ba mu fi nekkee nu mu doon dunde ak mag ñi nga xam ñoom la fi nekkaloon nu mu leen doon yare di leen toppatoo muy magi taalibe yi nga xam ne nii Cheikh Mahamadou Basir nee na ñoom la sëñ bi nettali ci xoqal bukaa seeni melokaan kon Touba am nag jagle ci ne bokk na ci dëkk yu néew ci àddina bi yi nga xam ne nii dañ koo sos ngir jaamu yàlla dong waaye ngir yar ak defar doomu aadama waaye nag néew nañu fi dëkk néew na ci ñoom ñoo xam danañ fàttaliku fondement boobu nga xam ne ci la sëñ bi tabaxoon dëkk bi ba noppi nag fu ñu toll de wayantoo dëkk bu sell bi wala dëkk bu am ak jagle bokk na ci jagle yi Tuubaa am tam mooy li bëgg a tudd te mooy màndarga yi nga xam ne nii boo ko gisee da nga xam ne dëkk bi wax dëgg yàlla ci cosaan diine moo ko sosoon te dëkkub cosaan dëkku diine la tam màndarga yooyu nag mën nañ koo séddale ñaari xaaj màndarga yi nga xam da nga koy làmb di ko daj xool ko gis ko man cee teg sa baaraam ak mandarga yoo xam ne nii ay yëgi-yëgi biir lay doon wala ay melokaan yoo xam day feeñ waaye doo ko làmb daj ko doo ko xool gis kon màndarga yi nga xamoon moom nga làmb daj ko mooy mandarga physique wala mandarga matériel yi nga xam ne nii da nga koo mën a gis ak sa bëtu kese wala nga mën cee teg sa baaraam bi ci jiitu mooy boo gisee dëkk bi ni ñu ko plan d'urbanisme bi mu am ni ñu ko plan plan bi ñu ko rëddee nga xam ne gox yi ci baree bari day xiblaw day jublu xibla kër yi fi nekk itam boo xoolee ni ñu ko natte te dañ ci ñëwaat ci kanam moom it dañ la jox ne melokaanu diini kon dëkk bii di Touba sëñ bi mu ngi ko sos ci atum 1306 ci gàddaay gi dëppook weeru septembre 1888 ci ni ko ñenn ñi tudde gëstoo dute ko tuubaa muy garab goo xam ma nga ca aljana ñu gis ci mbindum sëñ bi itam luy tegtal ne sëñ bi su borom aaral na ko dëkk bi ba naka su dul noonu du fi am waaye nag gisaguñ ci mbindum sëñ bi moom fu mu bind ne Touba ville sainte la maanaam Touba dëkk bu sell la loolu gisaguñ ko kon xëy na ville sainte bi dëkk bu sell bi sunu xër ñun murid yi ñoo ko ci indi waaye Touba moom dëkk buñ ko aaral la loolu moom sëñ bi na ko boppam kon sëñ bi sos na dëkk bi ci sosu diine defoon fii lu mat ñeenti kër këru Touba ak këru Daaru Xuddoos wax nañu li taxoon mu sanc ko mooy deeyaale ak boroomam fa la ko daan defe suy binde ay xasida fa la koy binde suy dugg xalwatu wéet ak boroomam ci ñaari kër yooyu la koy defee muy tuubaa ak Daaru Xuddoos sosaat geneen kër tudde ko daarul minan nga xam ne wax nañ ne par ngoon la fi daan ñëw su fi nekkee bu guddi mu bàyyi koo fi dem ci kër Tuuba fa lay jeexal li des ci guddi gi sosaat fi geneen kër tudde ko fa la daan dalal gan ñu mag ñi ak boroom xam yi ak yenn kilifa yi nga xam ne nii daanañ ko seesi kon ñeenti kër yooyu moom la sëñ sosoon fii ci Touba gu ñu nag gis nga ne mbirum diine moo tax mu sos ko ginnaaw bu mu ko sosee ba noppi digal na lenn ci taalibe yi ñu sos fi ay kër mu digal sa Ibrahima Sarr Njaañ mu samp kër ci maanaam nday jooru dëkk bi Saalum bëj Saalumu Touba sëriñ ma Samba jot Saam mu digal ko mu samp kër ci càmmooñu Touba wetu càmmooñ gànnaar dal di digal sëñ Abdourahmane Lo ndaam mu sañ sanc kër ci penku Touba digal maam Cheikh Ibrahima Fall mu ci kër ci wetu sowu kër yooyu nag ak barab yooyu la fa ëppoon solo mooy dañ fa daan defar nit ñi ci wàllu théorie mooy jàngal leen ne ko suñ xaali waxe léegi waaye tam defar leen ci wàllu pratique te mooy ñiy liggéey ci liggéeyub loxo ak di jaamu yàlla daal di digal si ndaam Abdourahmane Lo ne ko féetewal njàngum alxuraan njàngaleem alxuraan mi maam Thierno mu féetale ko njàngaleem sariya mi moom ci boppam nag mu féetewoo defar nit ki ak yéege leen ci wàllu ruux ak di superviser situation bi muy doxe nos gu set gu sel gu sévère moom la sëñ bi nosoon dëkk bi loolu nag kenn ci ñu doon bind ci sëñ bi tënkoon na ko ci wenn bayit ne ko xawmun laa yaarifuuna siwa xisyaani masjidihim aw darsi alwaahim wal xarsi bil jarat nee na ko ñu dëkk Tuubaa ay nit lañ ñoo xam ne nii ñetti mbir dong lañ xam mooy dem ja jàkka ja julli ji ñëw jàng seeni àlluwa bu nawet jotee ñuy bay seeni tool loolu lañ doon def kon mandarga mi njëkk a feeñ mooy ne sëñ bi bi mu sosee dëkk bi da koo sos ci sosiinu diine waaye itam samp fi ay kër yoo xam ne ni kër gu ci nekk diine moo ko sos bokk na ci mandarga yi ñu mën a xool di ko gis tam mooy daaray alxuraan yi ak taali jàngu yi niñ tasaaroo woon ci Touba tamal na bu ñu waxtaan Touba ñooy waxtaan Touba gañ xamoon bu njëkk bi bu njëkkoon wala boog lu yàggul lool sax ñaare kër yi cosaan yi ci tuubaa foo ci masaan dugg da fa fekk taalu jàng marax jàng alxuraan ci guddi muy tegtale ne dëkk la boo xam ne nii li ko sos dëgg-dëgg màndargaam bokk na ci jàng alxuraan ak di ko mokkal ak di ko bind defe naa ne suñu xaalis ñëw na ci léegi kon daara yi ak taalu jàng yi woon ci dëkk bi màndarga la ci màndarga màndargay diini yi nga xam mën nga ko xool gis ko ci Touba bokk na ci màndarga yi ñuy xool di ko gis tam mooy jàkka ak bare bi jaamukaayu yàlla yi nim tasaaroo ci dëkk bi am na dëkk yoo xam ne nii boo fa doon dugg jub ko la ngay njëkk séen mooy ay tuur tuur boo xam maanaam tabax bu gudd bu kawe lool moom ngay njëkk a seen wala statue boo xam ne bu gudd lool moom ngay njëkk a seen waaye Touba boo ko dandee ay kilomètres li ngay njëkk a seen mooy sooroor bi mooy jumaa ji loolu lu mu lay wax mooy dalay tegtal yaa ngi dugg si ci dëkk boo xam ne nii kët boroom ma ko sancoon dafa waxoon ne wajal buyuti kullaha masajida yaa naafiyan man laa yakunu saajida ñaan suñu borom ne ko nanga ma defal sama kër yëpp muy ay jàkka yow mi nga xam dàqal nga ma képp koo xam nangu wula sa joot suñu borom waxoon ci matlabul fawsayni ne wal taj'alan fii jamaatan tuqiim as-salawaati al-xams da'ban yaa hakiim nanga ma ko defal xam ne nii ay mbooloo dañ fi sax di taxawal julli juróom yow sunu borom kon jàkk yi ak barab barabi jaamukaay yàlla yi ni mu tasaaroo ci dëkk bi ci màndarga yi tegtal Tuubaa dëkkub diine ci la bokk boo ñëwee ci biir kër yi kër goo dugg ci Tuubaa muy këri cosaan yi foofu lañuy waxtaane dangay gis niñ ko daan natte ci biir kër gi dafay tegtale ne njàngaleem diine mi ngi ci dañ ko daan séddale ay kees keesug sëñ bi keesug soxna yi keesug daara yi tarbiya yi ak keesug ñuy jàng alxuraan nga xam ne ku nekk ak sa keesug bopp ba ñuy wërta jaxasoo du ñu jaxasoo góor ñi jigéen ñi duñu jaxasoo tuut tànk yi ak mag ñi tam duñu jaxasoo ñi toll ci jàngit duñu jaxasoo ñi nga xam dañoo dañ leen di def tarbiya wala yu mel noonu loolu li muy tegtale mooy ñu wërta jaxasoo du ñu jaxasoo te ku nekk xam na ne lislaam bokk na ci lim fonk lool ñi wërta jaxasoo di bañ a jaxasoo këru gu mag murit goo dugg ci Tuubaa muy kër yu mag yi noonu lañ ko sancee woon bu njëkk mu nekk ay kees loolu tam ba tey tegtal la ci ne doon nañ sàmmoonteeg diine ci dëkk bi boo ci yokkoo rek jubal gi xibla nga xam kër gu ci baree bari dafay xiblawu donte am na ci kër yu rax yéegi yoo xam ne nii xiblawul bokk na ci màndarga yi ñu mën a xool di ko gis tam mooy colug waa dëkk bi ci cosaan niñ daan solo boo leen gisee da xam ne sàmmoonte nañ ci ak critères yi islaam teg ne moom la col war a mel mooy na jot te bum xat te bum yaraax loolu bokkoon na ci suñuy col góor ñi ak jigéen ñi di ko solo col gi du xat du yaraax du gàtt bu ko defee day nekk colub lislaam loolu tam lu ñu mën a xool di ko gis la ci màndarga yi kon yooyu yenn te yi nga xam ne mën si na ko làmb daj ko di ko xool di ko gis ci màndarga yi teg Tegtal Touba dëkkub diine la bu ñëwee ci màndarga yi nga xam ne nag moom ci wàllu ruux la nga xam ne ni xëy na da nga koy nemmiku ci doxoy nit ñi wala ci yëg-yëgu nit ñi waaye doo ko mën a lam teg sa loxo mooy ay jikko ak i comportement yoo xam ne nii xamoon nañ ko ci ñi dëkk tuubaa bu njëkk gisoon nañu ñi dëkkoon Touba bu njëkk dimbalante ak jàppalante jikko la ju fi amoon solo lool mooy ku fi masaan nekk loo xew le bokk yëpp dañ koy ànd ak yow booba dëkk bi melagut nii mu mel yërëmante itam gisoon nañ ne jikko la ju fi siiwoon ci ay jamono ak mbokkoo waaye itam ak woyof ku nekk mën a tolore sa morom mën a ànd ak moom te doo ko wan sa bopp loolu ci melokaan yi nga xam ne ci la bopp kon ay mandargaa ngi yu baree bari yoo xam ne nii yenn yi mën nga koo xool gis ko mën nga koo làmb daj ko yenn yi nag ay yëg-yëg la yoo xam ne nii da nga koy gis ci biir nit ñi kon loolu ci la sëñ bi saf sosoon dëkk bi waaye itam mooy jubluwaay yi taxoon mu sos ko waaye nag dañu wax ne barab bu nekk buy bar jëmmi barab bi di soppi ko waaye ña fa dëkk bu ñu soppi ko barab ba dafay soppi moo tax li ñu jàngat ne gis nañu tuubaa am na avenir lool ci biir réewum Sénégal su fekkente ne xam nañ potentialité yi fi nekk te mën koo jëfandikoo ci gën jaarafet yi anam moo tax dëkk bi mi ngi xaar lu baree bari ci ñun ay doomam ci fànn yépp nag mi ngi xaar ñu am taxawaay bu mat sëkk waaye itam sart bi mooy ñu jël matukaay yi ñu war a jël ba défi yu mag yi nga xam ne nii màndargay dëkk cosaan yi màndargay diine yi amoon ci dëkk bi am na défi yu mag ay gàllankoor yu mag yoo xam taxaw na ci kanamam ngir jële fi màndarga yooyu loolu nag ku nekk ci ñun war nga koo xam te di ko bàyyi sa xel lu tax kon dëkk bi màndarga yu mel nii amoon fi lii sosoon ko ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne am na ay melokaan yu bees yu baree bari yu fi am yoo xam ne nii boo fiiree ci murid yi dëgg-dëgg wax dëgg yàlla doo ko la dañuy gis ne li ñu wax wàllu crime criminel wàllu criminalité mu ngi commencé di tasaaroo ci dëkk bi lool lool lool ñun bañ koy xam booba nga dégg fi nit ku ñu rey boo ko déggee balaa nga koy déggaat dana yàgg lool léegi nag rey bari na lu muy am ci dëkk bi ak agression yoo xam ne nii léeg-léegi ñu di ko fi dégg lii di am ñoll di dorog ñëpp dañ xam ne mi ngi tasaaroo ci dëkk bi bu baax a baax dorog nag mooy ndeyu yëpp te gis nañ ne mi ngi dugg ci dëkk bi bu baax a baax a baax gis nañ ne commerce bu tegu ci yoon jaay fraude fraude boo xam ne la nga cee jaay mën naa am sax du doon lu baax mu ngi fi tasaaroo tey njabarkat yëpp. ak caaxaankat yu baree bari yoo xam dañoo ay caaxaan rek lañu doon dund ñu baree bari daw nañu ñëw làqut ci dëkk bi di fi def ay pratique yoo xam ne nii xel mu sell sax du ko nangu jàpp naa ne loolu nag ñun ñëpp ci am responsabilité moom ñun ñëpp ci am responsabilité ndax dëkk du soppi ko waaye ñu dëkk ci dëkk ba ñooy soppi ko boroom gëstukat dañoo wax nag ne boo bëggee soppi mbooloo soppi seeni jikko fexeel ba soppi ni ñuy amee alal ni ñuy amee alal bis bu soppi ko seeni jikko soppi bañ daan bay di dunde suñuy jikko neexoon nañu lool waaye nag bañ ñu soppee def ñu ay yaxantukat donte yaxantu lu baaxul la waaye jural nañu ay jikko yoo xam ne nii bokkut ak yañ nga xam ne nii moom lañu ñu séentu ci ñun moo tax waxtaan ci cosaanu dëkk bi ak màndar yi fi amoon ak nu ñuy fexee ba delloosi ko bu fekkee xelum kese kese ngay jëfandikoo dana jafe nga mën koo dégg ndax lim laaj ci waxtu ak lim laaj ci effort loolu rëy na rëyaay boo xam ne nii xelum kese-kese mënu koo dékku waaye nag sunu borom am na lu may ay jaamam yoo xam ne nii mën na noo def loo xam ne nii moo kawe am xel xëy na loola moom la dalale sunu xel kon bu ñu xoolee mandarga yooyu moo am na défi yoo xam ne nii mu ngi taxaw tem ci maanaam jële ko bi ci njëkk nag mooy fi mu nekk nii liggéey ñu baree bari mooy fexe ba identité bi dëkk bi amoon ñu effacé ko identité diine bi dëkk bi amoon ñu effacé ko remplacé ko beneen identité mooy dëkk bi dañ ko bëgg a jàppee mu nekk centre commercial bu mag wala boog ville commerciale boo xam ne nii maanaam yu baree bari daf fi tasaaroo ñàkk gi di fi siiw ñàkk jàng di fi siiw wérid yi di fi siiw njabar gi tasaaroo fi charlatanisme tasaaroo fi ak yu mel noonu te yooyu ñu xam ne mooy li taxoon sëñ bi sañc dëkk bi ngir xeex ak yu mel noonu moo taxoon mu sanc moo tax képp koo xam bëgg ngaa liggéey ci dëkk bi te liggéey ma nga jàpp ne dana neex sëñ bi mën mënta ñàkk nga bàyyi fondement bàyyi xel fondation bi nga xam ci la sëñ bi tabaxoon dëkk bi nga yeew bu baax atam te fuglu bu baax ci dérapage ak ndëgg sërëx yi nga xam ne nii boo wëtuwul da nga ci tàbbi te la koy indi mooy ñenn nat ci nit ñi nga xam ne nii dañoo bëgg a soppi njàngaleem sëñ bi indi ci seen dëggiini bopp yu wuteeg cosaan yi kon nag laaj nañu jàngataat bu baax xasiidatu matlabul fawzayn nga xam ne murit yëpp mën naa am ku ci xëy da ko jàng waaye dañu jàpp ay ñaan rek la yoo xam da ngay jàng ba noppi tifli sa kanam fekk na wuute na ak loolu matlabul fawzayn mooy fondation dëkkub Touba ni sëñ bi bëggoon dëkk bi mel ko moom la def ci Matlabul Fawzayni taalibe yu bari bari boo wax dañ naan la sëñ bi lu mu ñaan daa am ba noppi defe naa ne ñaan lu am moom sëñ bi amutoon jot gu toll noonu booy ñaan li li nga bëgg mu am te amagut moom ngay ñaan te fekkonte ne daa am ba noppi nag defe naa ne sëñ bi amul jot gu toll ne di ñaan loo xam suñu borom nangul na ko ba noppi kon war na noo gën a liggéey ci projet de société boo xam ne nii moom la sëñ bi bëggoon ci dëkk bi ci wàllum njàng ci wàllum jaamu yàlla ci wàllum barab yi wutukaayu wërsëg ak wàllum sécurité ak kaaraange ak yu mel noonu kon fexe ba identité boobu ñu bëgg a ñu taxaw tem ba mu bañ a wu bokk na ci li nu war ñun bokk na ci li nga xam ne tam gis nañ ko ci dëkk bi mooy ni ni ñu planifié woon dëkk bi natte ko noonu lu ci baree bari dañ koo jalgate léegi occupation anarchique mooy nit ñi nu leen neex occupé ko terrain réserve yu ñu ci bàyyi woon yëpp penc yu mag yu baree bari ñu daggat ko di ko jëfandikoo ci loo xam ne nii bokkut ak la ko doxoon a jóg tey fi mu nekk léeg-léegi jàkk donc boo ko bëggoon tabax dangay jënd terrain wala da am jafe-jafe foo ko def te loolu lépp bàyyi woon nañ ko xel ci dëkk bi ngir mën a màggal mbirum diine ci dëkk bi bokk na ci li ñu war a taxaw tam mooy gis nañ ne kër yu baree bari sëñ bi ba mu ko fi samploo dafa waxoon ne nan ko def muy kër yi yar ak jàngale kër yooyu ci baree bari léegi soppi ko ay centre commercial kër yi ci baree bari léegi boo fa demee nekkatul këru defar nit waaye dañ koy soppi ay centre commercial ak leneen ak leneen ak yu mel noonu boo demee ci maanaam transport bi nga gis jaxasoo gi ñu ëppee te li ko indi mooy transport bu ñu fi indi te dëppoo wu tëg màndargay dëkk bi xam nga ne bis tata yi lu baax na kenn werantewu ko waaye léegi boo ci duggee yow da ngay am kersa ngir maanaam nit ñi di ñuy tappaloo te góor ak góor sax waruñoo tappaloo waxuma la ak nag góor ak ku dul jigéen a jigéen ñoo toppal waxuma la ak jigéen ak ku dul jigéen nga dem ci oto fukk fukk yi fukk ak juróom yi ñu def ñetti bank ci dëgg bi ñetti bank ci oto bi nga gis góor toog jigéen toog ñu roofale seen i tànk defe naa ni loolu xam mandarga yi war ngaa xam ne am na lu ñu ci war te sëñ bi bokk na ci li mu gënoon bañ mooy góor ak jigéen di jaxasoo bokkoon na ci nga gis folklore bu bari bi ci sunu jataay li ñuy wax spiritualité maanaam ruuxaane yëg-yëgu biir suñu barab yu baree bari wax dëgg yàlla boo fa demee dootoo am yëg-yëg boobu ndax folklore bu bari boo xam dana feeñ suñuy doxalin loolu lépp kon ci la bokk li ci gën a bees nag mooy xale yi nga xam ne ñu ay fàqmaan commencé di tasaaroo ci dëkk bi maanaam yeneen barab lañ jóge ñëw wàcc si dëkk bi di ko wàll xale dëkk bi ngay dox ci mbedd mi gis xale yoo xam ne lay wóor na ñii seeni melokaan doy na waar lool lool muy danger boo xam mi ngi développé ci biir dëkk bi di menacer suñu sécurité ak sunu dal ci suñu biir ak leneen li ci des nag mooy euh, faraax ruux yi maanaam vide boo xam ne nii léeg-léeg nga di ko seetlu ci dundinu nit ñi gis jàkka yi ma waxoon léegi jàkka yi ma waxoon léegi tam ba tey da ngay gis ne la mu jóg moom itam léegi dañ koo sot jalgatu ku nekk xam ne jàkka bokk na ci li ko tax mooy boole jullit yi ñu nekk benn bokk na ci ni ñu koy defee mooy ñiy dajaloo ci benn barab juróomi waxtu ci bis bi di xamante di gisante léegi nag loolu niñ koy jalgatee mooy dañuy fexe ba ku nekk tabax jàkka ci sa buntu kër boobaa léeg-léeg gis jàkka joo xam ne nii léeg-léeg sax kenn nit du fa julli wala waxtu juróom kenn fay julli wala ñaara fay julli bu ko defee mbooloo muy gën di tas loolu defe naa ne lu ñu war a nos la ci biir jàkka yi ak niñ koy tabax nga gis wàllu barabu jàngukaay yi moom itam léegi suñu xaalis ñëw na ci lu baree bari xàmmeetoo ci kiy jàngale ak lan lay jàngale ak nu mu koy jàngale ngir ne ñàkk saytu goo xam ne nii mi ngi feeñ ci biir kon bu ñu bëggee tënk dañuy njëkkante wax bi wane ne kon xëy na loolu lépp nag doxu àdduna moo ko indi ci dëkk bi loolu nag lu naturel la loo xam ne nii ñëpp mën nañ koo xam waaye nag war nañ cee mën a dugal suñu loxo ba dëkk bi ni muy développé ñu mën koo teg ci yoon woo xam ne ni dana dëppoog liñ bëggoon dëkk bi doxe noonu loolu nag mooy mission xale yi génération bi nga xam ne ni ñooy jóg war a taxaw taxawaay boobu te bañ a yam rek ci wayantoo dëkk bi sell bi dëkk bu amul jagle ak yu mel noonu waaye fekkee ñi ngi wax loolu ba noppi nag li ngay gis fii doo moom rek ngay gis ci yeneen dëkk yi loola moom ku la ko nangul it daf la koy nangul noonu ngir rek maslaa waaye du demee noonu kon war na nu ñu jéem a fexe ba identité dëkk bi ñu delloosi ko fexe ba jàmm yàlla gi taxoon sëñ bi sanc ko mu delloosi loolu nag lu yaatu la war a tam fexewaat ba yéen nit ñi soññi leen sensibiliser leen jox leen tam royteef bañ mën caa jaar ci wàllum njàng meeg njàngale mi ñu fexe ba tabax ay barab bi jàngukaay yoo xam ne nii ku bëgg a jàng da nga fa mën a jànge te xëy na lañu lay teg danga nga ko mën a tegoo waaye itam barab bi fajukaay ak yu mel noonu nga xam ne koy soxla fexe ba barab yi ñuy toppatoo xale yi di leen sàmm ñu mën ko fee am ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen fexe itam ba ñu wax xisba xisba mooy mbooloo moo xam ne nii li leen tax a jóg mooy sàmm valeur ak cëslaay ak aada ak cosaani mbooloo mañ bokk loolu tam dëkk lislaam yu baree bari xamoon nañ ko loolu tam mooy ñi nga xam dañuy liggéey ci digle lu baax di tereb safaan di aar sàmm valeur ak cëslaay yu mel noonu war nanoo fexe tam ba wàllu ba wutukaayu wërsëg yi ñu dugal ci suñu loxo bu baax a baax fexe ba ku fiy defar barab boo xam ne nii barabu liggéeyukaay la usine la wala industrie yu mel noonu nañ fexe ba la muy produire na dëppoo critères yi lislaam teg ne ci la ñu war a produire waaye li ngay gis fii léegi mooy comme mooy borom alal ju dem ba Chine wala mu dem ba beneen dëkk importe fa marchandise moo xam ne nii la ca ëpp bu ñëwee li muy yàq moo ëpp li muy defar te bu ñëwee dugal ko ci biir mbooloo te ku nekk xam ne marchandise muy ñëw mu nekk dafay indaale ay valeur ak i cëslaay boo xoolee xale yi ñu soloo rek yi ci baree bari maanaam dañ koo jëggaani marchandise muñ ñu jëggaani la mu indaale ko tax ni américains yi di soloo nga gis sol tubéy ruugi ko loolu façon tubéy yi ñu importé di ko indi xale yi di ko sol am na tubéy yoon boo ko solee maam ak loo mënti defee dana ruugi ko ndax fond bi mooy gàtt ba doo ko mën a takk ci ndigg li loolu dañ ko importé ko xale di ko sol ba mujj far ko tàmm nga gis soxna li ñuy sol muy ay bëdi ak yu mel noonu dañ koy importé indi ko jigéen gi sol ko mu ne tàpp ci yaramam te ay benn benn yu yëngu ci wàllu alal ñoo ko fi dugal ak yeneen yu baree bari ba ci fowkaay yi nga gis ni ñu koy jox xale ñu ciy fo yu ci bare ba daf leen di jàngal ay melokaan yoo xam bokkut ak ñu mel xam nañ bu yàggutoo njaay benn waaye boo xam dafa importé marchandise ay fowukaayu xale ndox moo ne ci biir ndekete ndox mi alcool daf cee jaxasoo xale yi di ko jënd di naan xale bu tuuti bu màggee alcool bi day màggaale ci yaram wi bu ko defee dafay teel a koroni ci alcool te du ko mën a bàyyi loolu lépp ay yàqu-yàqu la yoo xam ne ni dañ ko fi dugal ci marchandise muy jaar di dugg ci biir dëkk bi loolu defe naa ne ñun ñëpp a ci am warteef ci sàmm ko ngir mën a delloo dëkk bi identité bi nga xam ne nii moom la amoon kon mbir a ngi noonu daal loo xam ne nii waxuñ nag nañu tëju ndax jamono ji kenn mënut a tëju dëkk moom kenn mënut koo tëj waaye nag war na noo jël matukaay yi nga xamoon moom lañu war a jël ngir ba mën a adapté wu luñ fiy dugal mën a dëkkook li nga xamoon moom lañ soxla woo ngir li ciy tukkee ci ay ñagas-ñagas mën a gën a néew loolu nag lim soxla woo rek mooy yeete ak soññee rawatina xale yi ndaw ñi ñu yee leen soññi leen waaye itam gën a tasaarewaat njàngaleem sëñ bi ca nam ko jàngale woon nag te bañ koo def ay théorie di ko mokkal rek waaye ni fexe ba di ko pratiquer ci jikko yi ak melokaan yi loolu itam mënta ñàkk ñu xam bu baax dëgg-dëgg lan moo araam ci lislaam ak lan loo xam ne ni aada moo ko bañ ak li nga xam ne ni environnement bi ngay dund moo ko bañ ndax loolu itam danañu dimbali si pression bu metti bi ñuy teg ci kaw nit te mën naa am mu jur safaan ba buñ dee ba cëppaandoo ji loolu nag mooy ñu xàmmee ko bu baax a baax lu nekk ñu xam na ñuy jëflanteeg moom li lislaam araamal kenn mënu koo nangu ci dëkk bi waaye nag am na loo xam problème aada la moo ko nanguwul loola des na cee xalaat am na loo xam nag environnement bi ngay dund moo ko nanguwul ci misaal tey maanaam jigéen ju sol tubéy ak góor gu wodd maanaam bu dee ci yéen am dëkk boo xam boo fa demee tey góor ñi ñooy wodd jigéen ñi di sol ab sip wala yu mel noonu kon yooyu ay aada la maanaam façon col aada waaye col moom ay critère la am yoo xam bu xasee daje rek col googa mënees na koo nangu mooy bu xat bu mu yaraax bu gàtt yooyu nag li ñu koy man bokk nañ li ñu koy may ñu xàmmee li nga xam ne nii lislaam moo ko bañ kenn mënu koo nangu ak li nga xam ne moo ko bañ kon xëy na mënees na caa xool ak li nga xam ne environnement bi ngay dund moom kese moo ko nangul léegi nag fexe ba tam sentiment yi émotion yi nga xam moom la ñuy doxe lu mu gën a néew moo ca gën a baax ndax dañoo jamono joo xam ne nii xel moo koy doxal fi mu ne nii xel moo koy doxal te xel rek lañ mën a sukkandiku ba lu baree bari ñu man cee mucc ndax ñi ñu seqal jamono jëfandikoo wuñ baatin jëfandikoo wuñ lenn seenum xel ci la ñuy doxal kon nag ñun te war nañu mën xel moo xam ne nii danañ ci dox ba ñoom fi ñu bëgg xëcc jëme ñu fa duñ ñu fa mën a yóbbu xam naa dañuy jamale foofu kàddu gi daal asalaamaaleykum wa rahmatullah demam nga ump na mindeef te um na boppam kuy mindeef yakowóof ak yàlla ak ñamu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te bar sàkk